Ah, donc daje bi tey dañ leen a woo pour euh, pour euh, comment dirais-je encore pour wax leen li nga xamante ne ni moom la ñu dund en tant que ñun dañoo def suñu commande commande de mayo à l'étranger ñii ñoo ngi def seen commande en Chine ñii en Dubaï ñii en Turquie voilà donc nag ñun xamuñu woon que dañuy interdit vente des maillots xamuñu ko woon. kuréel sax ñu tere leen. c'est la première fois. coupe du coupe d'Afrique jaar na fi wàcc nañ suñu maillot jaay ko ku nekk Sénégal bu nekk am mayo sans problème. donc en un mois de la coupe du monde ñu ne ñu dañoo interdire vente des maillots xamuñu ko woon. donc def nañu ay commande actuellement commande jotoon na ñëw y' a plus de 37 maillots yoo xamante ne nii jàpp nañ ko am na yoo xamante ne ci yoon bi di ñëw donc loolu nag wax dëgg si yàlla. te waxuñu ne nit ñu ñu dañoo ñëw rek ñu ne ñu fédération dañoo interdire jaay maillot yi jël maillot yëpp del delluwaat ko jàpp ko comment nga te conteneur yaa ngi ci yoon bi di ñëw te ñii dañoo dem def prêt ñii dem euh, jaay seen i bien pour mën dem commander ay maillot ñëw pour que sénégalais bu nekk am ñun ay 5000 francs 4000 francs la ñu jaayee maillot yi contrairement à la fédération ñi koy jaay ay 60 000 ak yu kenn parce que autorité aussi amuñu accès ci ñoom pour wax ak ñoom waaye démb di yeex démb rek am na benn autorité bu ma doon contacter pour mu jotale ñu directement avec le ministre mais da ko woo sonn jotuñu ko te ñun actuellement commande yaa ngi ñëw te ku nekk xam na commerçant bagage bu ñëwee dem fay say impôt fay au niveau de du port pour nga génne sa bagage ça fait tomb problème nga génne ko ñëw ngi ñu nangu ko donc loolu vraiment c' est des choses yoo xamante dañ koy dañ koy déplorer. Ah, donc nag point euh, euh, comme ni ma wax rek ñun bëgguñu wàcc terrain bi. di lakk ay pneu wala di def yenn yi donc nag euh, puisque un mois mu des ci compétition bi bu ñu ñëwul wax ak ñun ñun dañuy génnaat ci ci mbedd bi. ñaxtu vraiment parce que commerçant yi ñëpp dañ ñaxtu presque mais commerçant ngay gis ñu tey jii di taal ay pneu ne commerçant yooyu noonu bariwul bu dee am na aussi bariwul ko donc nag yooyu noonu vraiment la ñuy bañ donc moo tax ñun lu ñu amee mooy ñëw wàcc suñu bagage jaay ko ku ngoon ku nekk dem ñibbi ku nekk dem sa kër loolu la ñu xamee ko donc nag vraiment on ñu ngi wootee euh, ñu jàppale ñu jàppale ñu on appelle le président de la République du Sénégal monsieur Macky Sall euh, Augustin Senghor et le ministre des Sports Yankoba Diatara mu wax ci ñu wax ci lii quoi pour que vraiment ku nekk waa ñu jaay ku nekk dem ci jàmm ak salaam quoi. ñu ngi nuyu waa presse bi yëpp man la Ali Thiam nekk marché Colobane nekk président mouvement bañkat yi nekk si marché bi ñu ngi wax ni état bi tey lañuy ñuy interpellé di ko ñaan mu dimbali ñu ci mayo ñu saisir parce que commerçant yi nekk Colobane ak centenaire ak Sandaga dañoo def seen i commande ñi defee ko Turquie ñi defee ko sin lu tolloog 37000 maillots bu ñuy def commande yi kenn yëgaluñu ne maillots yi dañ koy interdire ñu jël ay pere bancaire ñëw pour investir ci maillots yi defoon nañ ko coupe d'Afrique bi mu jàll ñu ñëw coupe du monde bi tey ñu waroon def maanaam ñu defoon commande yi pour coupe du monde bi pour sénégalais bu nekk mën a am maillot parce que maillot dañoo dem ba xam ne maillot yi dafa cher ñu ko jaayee soixante mille et quelque ñun ñu bëgg sénégalais yëpp am mayo commerçant yëpp dajale seen doole dajale seen alal pour sénégalais yëpp am ay mayo ñu jaay leen ko 5000 yi ñu jaay ko 4000 tey ñu dem ba nootu grande surprise gars yi saisir maillot yi ba léegi mënuñu génne maillot yi ñu ngi interpellé président de la république nga xam ne say ndaw ay commerçant yoo xamante ne mosuñu ñaxtu commerçant yi ku leen xam xam nga leen ni ñoom duñu ñaxtu parce que ñoom dimbali état bi lañ nekkee fii bu ñu demee ba tey maanaam fédération sénégalais interdire maillot yu dugg dañ leen di ñaan ndimbal ñu bàyyi maillot yu dugg pour sénégalais bu nekk mun a am maillot ñu ngi ñu ngi ñaan autorités yi tamit ñu ubbil ñu seen buntu ñu waxtaan ak ñoom ñu xam ne ñun defar rek moo ñu tax a jóg boo leen gisee ñu commandé maillot yu toll noonu wàññi ko prix bu toll noonu dañoo bëgg sénégalais bu nekk am maillot parce ñoom mayo yu ñu yor rek doyul loolu rek la ñuy ñaan salaamaaleykum wa rahmatullah